waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar bu baax a baax di wax ngeen di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal di ngeen bokk ci ñu koy gis way di like di commenter que partager loolu ñu a aujourd'hui on va parler la performance exceptionnelle exceptionnelle digne d'un grand jour de Nicolas Jackson l'international sénégalais aujourd'hui il a encore une fois illustré où il a marqué un magnifique but euh, di diggante Chelsea ak Tottenham Tottenham bi nga xamante il a été invaincu depuis le début début de la saison donc aujourd'hui Chelsea Moumou dindi invisibilité bonjour noonu donc euh, actuellement il est def vidéo bi donc grâce à Nicolas Jackson Nicolas Jackson Moumou euh, deuxième bio, euh, Chelsea mais nak Tottenham aujourd'hui il a beaucoup souffert parce que euh, dafa deux euh, cartes rouges deux cartes rouges aujourd'hui moom len a empêché Et bataille euh, tax mënuñoo gagner match yi mais dañoo démarré won match bi nu a baax ñu ñu marqué mais malheureusement biñu amé mis rouge bi ci la match bi dadi tourner tourné mais aujourd'hui Nicolas Jackson franchement il a pesé beaucoup dans l'entrée de Chelsea mais il a beaucoup raté il a beaucoup raté donc war il il doit améliorer son efficacité devant les bi Nicolas Jackson dafa war a doon un tueur un tueur un renard de surface loolu la war a doon et je pense que ne loolu noonu moom dina ci bàyyi xel dina ci gën a liggéeyaat loolu laa yaakaar parce que Nicolas Jackson c'est un grand joueur c'est un joueur d'avenir c'est un joueur boo xamante ne il n'a que vingt ans et li mu war a defaraat bari na bari na trop fekkee dafa bëgg a doon titulaire indiscutable ci club bi di Chelsea il doit être un tueur devant les buts léegi ñu ne lu wéri laa ngi di commenté jaa ngeen jëf